وصول عن الوثيق النبا أني الهدى وزاق المنادي والجناب وقيم عنيد لي ربا عليك الصلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نعم بدور ومنه صلاة مع صلاة محمد شفيع الذي كل يبي وينير مع الآل والأصحاب مزد غلاما زبزت بأني كل من سيدور على كل سدي برضوان ربي كما قالنا في الخالدين يسير على سيف الفاروق من ربه ردا كبير كما قد سب وهو وزير منزل نجري النورين عبيده كما بال بالنورين وهو سبور على والد الستين أسنان الكما ابات الغداء بالسيد وهو سير على جملة الرسائل الوان ربهم كما جاءوا من جاء بيس كفور بيم أرتجي من مالك نفسه على سبي سلك للتفنيس لا تجور يا مترى mi nga xamante ne mooy jàngatu Cheikh Abdoul Karim barke ba Serigne Fallilou moom la ñuy jox Serigne Malick Seck mu barkeelu suñu noppee ñu def présentation bi. santoon yàlla lool. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla dolli jàmm ak xewal waaye bis bi tey mooy fukki fan ak juróom ci weeru baraxam ñu naan ko nisu Saabaan xam ngeen ne bisu tey ci la yonent bi jote woon ndigal bàyyi bàyyi di wax ni ka mu daan jublu langoo na moom ministre conseiller bu mag bi Youssou Touré am na mbégte maire rek daan ñëw waaye maire bi mu ñëwee doon na maire maire yi tey nag ministre na kon sëñ bismillah ndeysaan sëñ Malick Seck bismillah Oh, আপনারা acusar. liggéey bi yëpp yëpp yëpp. ñu ngi wàcc kàddu yi. di sant yàlla bu baax di nuyu Serigne Touba Sène mi nga xam ne ma woote bis bi di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm Alioune Badara dafa taxaw fii léegi wax ni. bis yi muy def Serigne Touba seen dina ci def alalam ba pare ñaanal ñun ñii nag ñoo ci raw ndax kër gi mooy suñu daara lépp lu ñu jaaxal ci suñu yaram wala loo xam ne dañuy soxla ñaan bu ñu ñëw mu defal na ngir seen Touba kon noo ñaan yàlla yokk bu baax dama ko wax ni tey jii. fuñ ma ko doon mën a woo muy daaru mus muy fu mu mën a doon bis bii rafaate naa la ko jox naa la ko loo ngi ñaan nag yàlla yàggal la loo ngi nuyu suñu yaayu daara soxna Faatumata bint Puy li tax ñu jiital seen Tuubaa seen day borom bis bi waaye moom moo fi taxawal Cheikh Abdoul Karim Mbacké moom lañu waroon njëkk a nuyu noo koy nuyu ci turu Serigne di nuyu président Mamadou Seck Seck mu baax bi nga xam ni bëgg-bëggam yëpp Cheikh Abdoul Karim foo ko mën a fekk fekk boo bëggee mu bëgg na nanga waxtaan waxtaan ak moom nu ngi koy nuyu di ko ziar murid sadiq di nuyu bu baax baax borom xam-xam yii seen ndongo mbub seen sàddi bu turee suñ mataar bopp ak ñi nga xam ne nekk nañ fi di ay boroom xam-xam noo ngi nuyu di nuyu monsieur le maire Alioune Sall fi ñu monsieur le ministre di ñaan bis bi ku teew yàlla fekk say aajo yëpp ci barke sëñ Touba mi ngi nuyu sëñ Abdou Aziz Mbacke ibnu Cheikh Modou Fatou di ñaan yàlla defal ko jàmm sax nga dem jëf. te xasaay di Serigne Touba yi ne soo ma saa jël xalima gi samp ci daa ji dawal ci këyit gi siis bi yàlla toog day yëngu. malaaka yi di sàmbaal yàlla yàlla doon ci jàmm tey nag gaa ñi dañu dikk ak aar tey bis la boo xam ne ku ku yàlla doxal nga yàgg fi tuuti nga dégg lu am solo ci lislaam waaye dañu jox Serigne Seydou Sy mu présenté délégation yi fi teew su ko defee rek ñu jàll ca liggéey bi Serigne Seydou Sy waaye cey cey monsieur le maire. maire bu wax nag béy di Medina Gounass la ko wër ak monsieur le ministre Youssou Touré sama doomu bàyyi Sénégal jàmm la yoon ba ma déggee fan la yow ah ah lu gouvernement bi tey day gën a yokk jëm kaw ndax Touré nga sax jàmm rek ngay def noo ngi jox jox jox Serigne Seydou si moom sëñ Basirou mu sëñ Fatou serigne cheikh sadibou touré ñom lay sant bu baaxa anu baax no ngi nuyo ak ziar no ngi jital ci sunu nuyo ak ci sunu ziar jambari serigne touba cheikh sidil mukhtar mbacke khalif général kul rek yalla fi yag lo tan rek wer ne ñepp ma fi ñaanal ko cheikh sidil mukhtar mbacke khalif général kul rek yalla fi yag lo tan rek wer juróom-ñaari sóoróor Serigne Touba yi moo def juróom-ñaari sóoróor Serigne Touba yi ci Dakar kon mooy borom juróom-ñaari juróom-ñaari mooy Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke xalifa général kul murid yàlla na fi yàgg lool tànn ñoom ciy teg sunu xalifa bopp Serigne Baraka